salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki Bonnoba bokki Kër Bala ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàccee seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaaraat yi kilifa gi muy Baye Ndugaar ñu koy wax Ahmad Ba te tey di bisam ñu toog fii ci saalam ak ay bokkam euh, fas yéene jotlante ay kàddu ci ndigalam euh, Seyid Libaas mi nga xam ni mooy taaw ju taawam ju góor moom la dénk kàddu yi moom moo ko war a sàndante ak ñun ci saal bi tamit ñu ngi fekk euh, kaaw mi ngi nii ak kaw Amadou ak Ablaay mi nga xam ne moom it ci famille bi moo ci mag ci waa Baay Bala ak Baye Ndugaar ñu toog ak it suñu yaay di soxna Buyal di jigéen ci kaaw Alaaji mi ak kaw Amadou ak bokki daare yi nga xam ne nii ñoom lañ ko àndanteel muy suñu ustaas suñu sëriñ Cheikh Omar Niang mii ñun nu dalal ca daara ja papam moonu jàngal alquranul karim bépp yarit bu di ci ñun papam moo ko def ci ñun muy ustaas Muhammadul Ghali muy ñiy sëtu alaaji daawuda ja ca mbëlëxe ñoom ñi eh, ak sunu rakk yi ñu bokkal jotaay bi tey nag eh, di journée bu mag ci nun ndax journée boroom xam-xam la boroom eh, ku yàlla may tey école bi nga xam ne nii tey moom la njëkk sos fii ñu mën ko tuddee école cosaan bi mu ngi ko sanc fële ca Marème Mbeng pour rek jàppandil waa fii ak waa côté diini ñu mën a daje foofu xam nga loolu yitte ju kawe kawe la su ko defee nag incha allah bu ñu demee ci témoignage yi ndax jël nañu ay témoignage yooyu yëpp dana ca dem euh, dañuy rek jox libaas comme axtu waa ngi dem moom mu tënkal ñu importance su journée bi tënkal ñu lenn tit ci jaar-jaaru góor gi nga xam ne tey euh, ci ndigalam moom la ñu jàppee bis bii di le 12 septembre 2021 gis ngeen interviewé bi mu ci jotoon a def muy avant première yi ak euh, bi ci euh, Thierno Libaas mi ñu toogal tamit jot a def kon dañuy bàyyi rek Libaas moom mu àggale kàddu yi euh, incha allah ànd kook bokki Nabi TV seen mbokk maxtar Sarr mu ngi leen di yóbbanti nuyoo ak ziarat moo fi yabal moor mi pour mu ñëw jël journée bi ñeneen ñi si des it ñu ngi ma woo ne ñu ngi ci yoon wi di ñëw daa xaw a xat kër ñàgg kër bala daal tey moo xaw a am jafe-jafe daal waaye ñoom ñu ngi ci yoon bi di ñëw incha allah amin Thierno Libaas kon kàddu gaangoog sëñ bi ñëw na eh, waaye rakkam moo ñëw ndax depuis àllarba ba tey dafa tawat muy sëñ Mansour Ñang bu maam Bachir ñaŋ soxna Faat Si bu alaaji Malick way juram mooy taawu alaaji Malick rakkam nag ñëw na mi ngi fii kër Maari eh, di alxaaji Bamba Ñang ñu ngi fii kër Maari incha allahu taala sëriñ bismillah ah, Euh, na ngi gërëm ñëpp moom nga xam ni du sunu mon-mon du sunu du sunu sak sakkuteefu yàlla rek moo ñu ko yënkabal alhamdulilah rabbil alamin muy bésu xam-xam xam-xam yaakaar naa moom gën na paase alquran alxam daal su duggee ci alquran yaakaar naa tabaarakalla fa lay di firankulayte lu mu gàtt gàtt wàcc nañu fi tey xaamil pour léemu ko taay bi ak ay yeneen yeneen asmaullahil husna kon nekk loolu rek li woykat ba waxoon su fi yemoon sax mu neex wax dëgg yàlla wàcc nañu fi kaamil ci daara ñu def ay fiddaaw ñu ñu ñu sikkar asmaa'ullaahi l-husnaa ñu xam ne yàlla na ngeen ma ci woo ma wuyu leen rekk nañu fa ay ay limu ci latif ak ay limu ci ya salaam ak ay limu ci ya latif ak yeneen tabaarakallah loolu yëpp wàcc na fi tey ngir bés kew-kew bi mu mel ne nag yàlla dafa dogal oustaz Daouda mi Euh, moo woote di màggal xam-xam jagleel bés bi nag mag dara jële ko nag sunu ustaas sunu imaam te Ahmed Ba ñu bari nag gën ci kam ci ustaas wala am wala nduga fa tabaarakalla moom lañu ñu dara jale bés bi yàlla dogal nag moo waroon wax lii may wax wante xat-xat jamono tax ah sunu sëriñ alaji malik ne ne ma faalal jalil huwa jamil ah fa tabarakallah ñu nangul ko ngantam ndax ay gan yu Dakar pe fii ñoom it ñu soxla woon ko xam naa ne comme yëgu dañu wowul téléphone dañu kii tam ah te ne gan nag buur la ah fi ak toog mënoo ko wax jógal nangam nangam loolu moo tax mu wuutal ma fi mu ne naa ko waxal xam naa ne mënuma wax li mu li mu waroon a wax wante nag dinaa am lu ma wax la ci wàllu li ustaaz Daawuda wax laajte ko ci ci maanaam mom ci boppam ci njàngalem e, moom yàlla dafa dogal keroog nit ñu ko nettalee bi mu juddoo moom ya papam de ko ne man defuma la defuma la maanaam taalibe dama laa def maanaam dama laa sarake daara soxlawuma ci yow len lu dul daara keroog lim na ko mu ak ki ñu may sëriñ ak ki ñu may ki ñu may ñu may ki ñu sarax yàlla nee moom nag papam de ko ne woon naa la yàlla soxlawuma ci yow len lu dul lu jëm ci wàllu diin mu ngi jëkk ubbi nag daara papam pàppam gaañoo sama mag bi ñoom Ablaay ñii la jëkk dabatal ci daara gi jàngal leen bi ay quelque quelque jamono mu ngi mu ngi dellu ndar muttali ay téere yi mu jëloon pour war leen jàng fekkee papam gaañu ci diggante bi kam nga faw nga dalandi ba ngeen rek situation yooyu ci la delluwaat ndar muttali maanaam téere yooyu bi ma ko nag ci li ñuy waxoon nettali ci la nijaayam bi ñu doon wag dolo ci rawpol moo ko jog juróomi taalibe mu ne ma jël ay juróomi taalib di wër ak moom tey fii nag fii loolu duma ko mon loolu jamono la woon man wante nun suñu jamono bokkul ci li ñuy moon léegi soo leen amee fukki xale ak juróom ma ñëw fii ci raw rawpol ma defalal leen fii taalal leen fii ekool ba mu kii dinaa leen orienté bi ngeen tegu ci raay bi man xam naa duma fi kii ma dem mu ne leen man am naa ay tool am naa ay kiir am naa kii mais dinaa leen teg ci yoon ba nga xam ne wante wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin uppana fanweeri at boobe léegi daara bi mu ngay dog ci Cross Mara Pël ku fa ñëw di nga gis daara ji pañ nekk ba léegi ñoom it itam ah teeloon nañu matt ci ndaal bi ndax école bi école ndugaa rek lañu koy wooye boobee léegi ay kangami kàngami wax dëgg yàlla ay ustaas tey judd nañu fa am génn nañu fa ki ay ay ki ay imma wax dëgg yàlla sant yàlla e, te wax dëgg yàlla loolu kawoon na fa jafe nag tey ji keroog bés dem naa fa bés ma ne leen maa ngi santal sama papa yàlla ci li ko yàlla mayal comme moo waroon fekk jotaay bi fekk bu ko ma ngi koy santal yàlla ndax fii man may am na jamono ñëw naa fi fii ci Raawpol suñu fa bëggee wàcc alquran ba ti ñu jéggaani ci ay yeneen dëkk yi wante keroog nun xale ñoo man sax jotuma fa tuuti laa ci jàng jeex ñu toj fa kaamil ñu jàng ko ñu jàngal seen kat ma ci seen bopp ñoom kese waraaw pour kese ma ne leen nag man maa ngi santal oustaz met Ba Nduga maa ngi koy santal yàlla ci lii mu yàlla may na ko li mu ñaanoon yàlla defal na ko ndax ne woon na dinaa fi taal daara bu dul fay a ah, yéene la amoon yàlla moo motal yéene bi ba léegi ñu ngi jàngale pour que dem rek oustaz oustaz Biram mu ngi may woo ci wàllu daara démb keroog lañ doon ñoom it ubbi far juma ca goog ba foofu daanaka ci wetu école ba tabax nañu fa juma bu rëy ñu ngi fi doon ubbi ak juma bi paase maa ngi leen cay ñaax nag di leen ci ñaanal ngeen bokk ñu ñaanal yàlla juma bi tam yàlla na lawe ni daara ji lawe yàlla na amee euh, li euh, réussite ni da juma daara ji amee fa tabarakallah mu mel ne xat na naaj na am na sunuy gan sunu sëriñ ñëw na daanaka Euh, dañu ko war a gàttal rek nu ñu ñu téere ko moon ñu mën a continuer jotaay bi ndax léegi naaj na ba pare e loolu daal mooy li ñu mën a wax ci départ pa oustaz mu ñëw fii nag ci del si mu delsee fii nag nun ñii ah yàlla dogaloon na nun daanaka nun ñooy ñaareelu euh, ñaareelu génération ci école bi ndax ñoom Ablaye ñu la jëkk jàngal fii ci daara ba ñu kii mais mu dellu bi ñëwee nag nun wax dëgg yàlla nun suñu suñu mag nag magu daara moo doon Mansour doomu maam naar la maam Amadine Ba ak ku ñëw doon ak Habib ñoo ñoo doon ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo nekkoon sunuy sunuy magum daara su nga xam ne su ustaas binde tërilee mbind su amee fu muy dem moom mooy toog di orienté taalibe yi Mansour ah tabaarakalla bu keroog maa ngi koy wax sax ma ne bëgg naa ah daara ji nag ni ko ustaas ustaas Daawuda waxe fii laa ko jëkkoon ubbi fii ci kër maam naar mbooloo yi di ñëw mu koy yokk bi mu dem kër sa moom Abdourahman fële ci kaasu sante ba itam dëkk yi ñuy intéressé wu déen géej si déen géej noor ñëpp ñu intéressé wu mu jëm yóbbu ko fële ci kaw fi ñuy wax kay kër Mayrame nga kër Mayrame nga nekkul woon kër daara la alaji Abdou Aziz Si Dabaax la ñu ko tudde woon mais nag bi mu moo fa sàncal Mayrame fa tabaarakàlla moo ngi jëli Mayra Mbengue daara ci bu ñu sancal ko pour mu mën a saytu daara ji pour euh, yenn bagage yi ñu ko fay mën a di béy fa tabaarakàlla lii mooy cosaan daara gi ba tey tabaarakàlla wax dëgg yàlla ñaan su nangoo dañu ne li jàll boroom tey wax dëgg yàlla tabaarakàlla noo ngi sant yàlla bu baax a baax daara yi wax dëgg yàlla macha allah bari nañu fi lool lool lool wante nag ñu ci ràññee daara bii nga xam ak beneen école boo xam bii mu ngi fii ci biir dëkk bi ñu tudde ko moom mii Daawuda moo ko jikkoon ubbi encore mu tudde ko Maymuna Maymuna nag nekk sunu maam nga xam ne daanaka ñi sanc dëkk bi ci la bokk moom Maymuna Maymuna moomu mooy waajur sama papa bu jigéen moom moo tabakoon daara bi tey moo ko tabakoon muy muy jàkk mu ne ñoom seen cosaan seeni ay bàjj nag yooyu dañ doon tabax daara mu ne man it kii da eh, jàkk man itam mu jël àllamb ko lew mu tabak ko muy jigéen mu tabak jàkk jàkk boobu ci la ñu jëkk ubbi sax ñu def ko eh, juma ñu cay julli suñuy jumaa ba yàlla dogal ñu am yàlla moyen ñu li ñuy wax moyen ñu tabax tey juma ñu bi ñu ko tabaxee jumaa nag sama mag bi Ablaay mu ne comme lii daal sunu yéene maam la woon bu jigéen nañu ko soppi daara ñu ji am xam-xam moo gën ma ne ko loolu li ñu waxoon sax defaguñu ko des na parce que dañu bëggoon dindi minbar bi ñu ñu kii ko après ñu def ko daara en même temps jigéen ñi fay julli juma loolu des na ba léegi wante nag lépp kuluma falal jale woo jamil e bi mu defee oustaz Daouda mii la yàlla dogal moo fi jëkk jàng jàngale moom mii moo ko tudd mu ni comme noonu la demee ah ñu nañu ko tudde koon nañu ko wàcce watit ba nañu ko tudde Maymuuna du dëgg moom moo ko tudde Maymuuna moom mii yàlla dogal bi mu jàngalee fii ñaari at ñett eh, sëñ Moustapha bu al amin bu sëñ Abdou Aziz si sama sëriñ woo ko mu ne na yokki xam-xam Maroc mu nekk fa deux ans yàlla dogal ah, li mu dogal ku defee bi mu jël seen fii mu def salli ala Muhammad man mii maa ko ko jokoon wante kër laa ko mayoon moom ci yéene moo ko def daara wante man moom kër la ñu wakante woon moo maa ko ko jokoon moo tax su ma ko kii ma ne ko ah déet yow kaay sa baax la su la nekkee nga yor lex man moom <laughs> kër laa la mayoon pour nga dëkk fa ñu mën a dëkk yàlla dogal na wante coppati na ci daal li mu kat kat coppati na ci tabax fa salli ala muhammad loolu na yàlla tuy wuru borom hmm? kon nag eh, wax dëgg yàlla eh, fa tabaarakalla noo ngi bëgg noo ngi kontaan ndax jullit amul lu dul diine te diine nag suñu ko waxee ñu wax alquran nag dañuy wax ne ustaas yi dañuy wax ne li jëkk ji wàcc ci yonente bi mooy iqra moo jëkk a wàcc ci yonente bi kon mu mel ne diine kenn mënu ko sellal te àndul ak sakku xam-xam maanaam nga xamlu taarifu nii qabla an taabudu nii illam kayfa taabudu nii ba na moom diine moom balaa mu sella mbati mu ànd ak laajte ñu wax la nga xam nga jëfe waante nag jaamu yàlla bu rek jaamu yàlla jalla jàlla ba allah akbar yàlla may li ñu bëgg ñu musal ci li ñu ragal ah mën na nekk jaamu yàlla waante gàtt waante mënoon na gën a rafeti noonu fa tabaarakallah noo ngi gërëm oustaz Daouda mi ci yéeneem bu rafet wax dëgg yàlla e ñu koy ñaanaan yàlla yàlla na yàlla sàmmaleen yàlla na yàlla sàmmal ko njabootam ndax sëñ Babacar mu ngi nii nañ dina wax ne yàlla nañ ma yàlla may fekki ak tal nee na soo fekkee te taloo ko itam day am lu des waante moom it yàlla na wér wérle waaw yàlla na wérle wérle ba mu tal lii muy def wax dëgg yàlla ñu ngi am moom ñëwante bu baax a baax ndax xam nañu fii dëkk àll la dëkk dëkk dëkk gi doole la ah xam naa xam nañ xam ci njàng ñu bari bari bari bari bari dañu miinul fay fay njàng njàng alquran ba tax na ku mel ni sama mag bale sama doom baj sama doom nejaay amet euh, noonu la tëlee rek mën na maye wante fay njàng moom comme dongol daara la moom kii fa tabarakallah moo tax e eh, alhamdulilah rabbil alamin wante ànd ak yooyu yëpp ñoom ñu ngi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp Daouda Camara mi ak oustaz Ngagne Ndiaye mais ñi ma xam ndax ñoom la yàlla dogal seeni tuuti ci ci tëralin euh, euh, yenn saa yi mu jaar ci sama tenk moo tax moo tax mën naa mën naa wax ci ñoom li ñuy dund wax dëgg yàlla ci ci ci ci volonté ci ci ci ci ci Pastef waaw parce que xam naa ne wóor na ma ne bu doon alal moo leen fa woon fekk dem nañu bu yàgg waaw man mii yenn saa yi dinaa toog ñetti weer ñeenti weer yoo xam ne yi jóg te gowuñu la ko xam nga loolu nag ah ngeen baal ma ak wante tabaarkalla yéeme na wante loolu la yàlla dogal pour wax leen rek ne wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi am li tubaab yi naan volante waaw li ñu ñoom li ñuy def dañu ko bëgg dañu ko gëm ndax xam naa ne xam naa yenn saa yi suñu waxtaanee ba gàcce jàppama lool hadis boobu laa leen di dóor rek pour pour pour ma yénneeku xayrukum man ta'allama al-Qur'ana fa 'allamahu boobu rek laa leen di sànni rek pour affaire bi yéen bi xaw a xaw a oyof ci man parce que tam ma ah, mënu lu dul loolu waaw ah, yonente bi li mu wax ko salaay salaam maa ne soo leen fi yaakaaree moom soo moytuwul léegi ngeen lima seen kaake ngeen yooru waante nag kanaa ngeen dëggër loo ko rek li yonente bi wax ki gën ci yéen moom mooy ki jàngal Alquraan di ko jàngale ah ngeeneel boobu kanaa mu bu wàcce leen fi xam naa gëm naa kanaa eh, pour pour rek pour rek jaajëfal leen rek waaye nag wóor na ma ne ñu ngi ci ñoom ndax su nekkul woon ci ñoom kon xam naa tabaarakalla wante nag eh di sant yàlla bu baax di sant dëkkandoo yi sam na jaay la ji mu ngi nii daanaka kenn naa baay maam naar amadin ba di maam naar ak oustaz ahmed ba mi famille bi moom mii moo ci mag waaw yàlla xam na ko wante nag eh, ci góor ñi ci góor ñi ci góor ñi ci góor ñi waaw dama bañ yoon sénégalais yi léegi dañu mën a wirante lool ci góor ñi salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp seen tur ak seen sant ma naan alhamdulilahi rabbil alamin may wax ci oustaz Ba di Nduga sama mag la sama doomu bàjjan la waaye ku góorgóorloo moom ci xam-xamu lislaam bariwul de am na waaye bariwul suñu jamono boobu ci bu njëkk defe naa ne moo ko fi jiit njàngale góor ak jigéen xale yi ba mu ubbee gi école bi mu njëkk a ubbi fii si kër maam naar fi mu dëkkoon sama xol bi noonu la sedd ba léegi bu ma ko xalaatee sama xol bi say sedd si doon na keroog ba ma solo leer sama xale yi ba leen dem leen noonu mu boole di boole gox bi yëpp nag xale yi di jóge deeni géej ak ci kër si mbir ñuy ñëw mu sori ci ñoom mu mu looloo tax mu ràndal école bi mu dem fale ci ko kii wi ñu naan kër Mayram Mbeng boobu la école bi nekkoon ñëpp a daje ma di ko ci sant trop nun ñii sax commencé woon nañoo jàngale àllak dañuy ba ñu sori ci tuuti waaye xam nga jigéen rek fu ma ji tëj maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk wéram ak xam-xamam bëgg naa mu teew fi nag toog ak nit ñi waxtaan ak mu waxtaan bu baax ndax ni mu def yow boobu jaar-jaaru njàng ci boobu ni mu jafee nun ñi tasi wuñu si suñu doom yi ñoo si tasi bu ñu si tasi woon ah, dinañ am lu ñu xam waaye tasi wuñu si loolu tax ñu ngi ko ce sant di ko ñaanal ku góorgóorlu ci ni mu góorgóorlu woon si njàng noonu la góorgóorlu woon si mbokk doo soxla ci moom nga mu gàntal la boo ñëwee lu mu niiw niiw loo ko wax di dina la ko jéem a fajal boot ñëpp a nekk sama papa dene woon kii kii jox naa leen kii oustaz Nduga loo loolu laa ko gën a jàppe nekk moo doon sunu imam kii gi gratuit sama papa mi ma ko jokkoon mu ne jàpp leen ci oustaz Nduga mi topp leen ci balawaay jàpp leen ci oustaz mi mu dina jiite moo ñu doon jiite boobu sama papa ba muy dund moo ñu doon jiite kii ak julli it muy doon jiite di ko ñaanal yàlla yàlla na yokk fanam ti mu ànd ak wér di ko ñaanal yàlla bu baax a baax di ko gërëm itam wax kon li ñu li ñu war a wax ci moom rek suñu jaara ci ak xam-xam mën na yàkkal bés yëpp macha allah السمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa habibina wa shafiina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu santee yàlla subhaanahu wa taala cant ku tollu julli ci soppeem ba di suñu soppe di soppe képp ku nar a texe ëllëg muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla yal na yàlla dolli ñu sutura daiman barke yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiital ci nuyoo bi nag kilifa dëkk bi muy suñu maam góor gi di jaare ci suñu buntu ci moom muy oustaz Dawda Camara bi nga xamante ni tey moom moo ñu sababal jataay bu mel ni a ëmb yiwu baree baree bari bari yal nañu ko muurloo bi jay seydul wujud sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni waxtu wi mi ngi waaw ñu amoon yéene rek pour jéemantu démarrer li nga xamante ni mooy programme bi nga xamante ni moo ñu fi dajale tey ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp nak ziar ñëpp jox ñëpp seen way nuyu bu baax Oustaz Omar di ko ziar bu baax a baax a baax a baax tabarakallahu Haji Omar di ko ñaanal yàlla moom it yàlla dolli ko fatxu bu ko defee ñi ngi am yéenewu incha allahu rabbi ubbil Oustaz Omar moom duggal ñu ci ay taaliqaat ci wàllu daara ci ni daara di doxe ci jamono ji ñu nekk en vingt et unième siècle ni daara di doxe tey ak na daara doon doxe démb ak façon jàngale mi nga xamante ni tey am na ah ci wàllu pédagogie ah ñun ñëpp ñu gisandoo yenn certaines daara yi ndax ni ñu defee noonu la wala ñu defee du noonu bu ko defee moom dinañ ci indil ay taaliqaat jox ñu si ay leeral boobaa nag suñu pare dinañ xam ne kon ñun nekk suñu daare bii di ICT sallallahu ala muhammad kon ni mi doxale noonu la bu sa daanele dinañ ko xam incha allahu rabbi mbokk yi ñu ngi leen baax a baax leen ziyaara sant yàlla mi nga xamante ne nii moo wax ci alquran ne wa allama adama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika ngi sant yàlla mi nga xamante ne nii moo wax ne iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne nii moo wax ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu waxaat ne afdalu uh, ma naxala alwalidu waladahu min adabin xasan liñ bëgg a wax tey daal ci muqaarana lay doon comparé diggante njàngale mi nga xamante ne nii moom la sëriñ daara yi def ak njàngale mi nga xamante ne ni xëy na mooy am ci biir école yi léegi nag am na ku ñu programme wan koo xamante ne ni moom moo waroon a ñëw pour joxe exemple ay misaal ci njàngale mi nga xamante ne ni moom la sëriñ daara yi def niñ koy defee su ko defee ñoo moom su paree ñun ñu door a jël def suñuy taalixaat wane maanaam ñun suñ duggee ci kalaas yi nan la ñuy jàngale xale yi léegi nag xëy na njàngalem sëriñ daara yi mën nañ cee wax tuuti ndax jaar nañ ci daara daara ni muy jàngalee mooy tey buñ la indilee xale masalan tey ñii ñëpp mën nañoo nekk ci daara ji sëriñ daara bi leen di jàngal ñëpp lay jàngal kenn kenn mën bañ a bokk sa borom fi nga yem xamante boppam lay jël loolu jàngale njàngale école école par classe ñu def taxdirul awal taxdiru saani ibdaayil awal ibdaayi saani mutawasitul awal mutawasit saani te daara moom benn classe la boo xamante ne ni ay classe yu bari ñoo nekk ci ndax kii yam wasam si bokkut ak ki nga xamante ne nii day door a dal te benn sëriñ bi moo leen di jàngal benn sëriñ bi moo leen di jàngal léegi nag jàng ñetti ñoo ñeenti ñoo ko seq jàng ak jàngale ñeenti ñoo ko seq kiy jàngale mooy ustaas bi wala ñu di ko wax sëriñ bi mooy muallim bi ki muy jàngal mooy mutaallim bi wala ñu di ko wax tilmise li ñu koy jàngal xam français la arabe la espagnol la li ñu koy jàng ak yoon wi nga xamante ne nii ci lañuy jaar pour jàngal ko yoon léegi nag xale bi nga xamante ne nii moo ñëw di jàng si maanaam dafa am lu mu war a xam muy xiraa boobu ñuy wax léegi nag ci biir njàng moomu def ci am ay wuuteen ci gis-gis maanaam nan lañu war a commencé jàngale xale te borom xam-xam ñii dañu am nii la nii la ñii dañu salantay xale bi baat bi nga koy jàngal ci boppam baat bi baat bi nuñ koy binde baat bi lan lay tekki ñett a ngi noonu baat bi nga koy jàngal baat bi moom na ko mën a wax baat bi baat boobu mu wax noonu moom baat bi lan lay tekki baat boobu tey mu di ko wax tey suñ ko ko doon binduloo mooy ay rumus loolu la ñuy tuddee rumus kon am na as sawt am na almaani am na ar rumus léegi nag bu dee ci njàngaleem daara ñun niñ daan tàmbalee mooy dañuy ñëw jàngal xale bi maanaam comme tey duñ ko jàngal baat bi yëpp salam tey ndax daf ci am yenn boroom xam-xam yoo xamante ni dañuy wax ne sooy tàmbali sooy jàngale da ngay tàmbalee ci gën a suufee jëm fi ci gën a kowe mooy da ngay tàmbalee minal juus i ilal kul am ci yenn borom xam-xam yoo xam ne dañu wax ne ñoo kul li ngay tàmbalee ilal jus mooy ci lépp ngay tàmbalee jëm ci suuf parce que tey soo bëggee jàngal xale bi lii muy xamis bubu mbubb mi yëpp nga koy jàngal wala ñenn ñi dañu wax ne danga naan ko lii mooy bouton lii mooy nangam lii mooy nangam lii mooy nangam soo boolee loolu yëpp mu door a tudd lan mbubb am na ñoo xam ne seen noonu nee nañu booy jàngal xale bi da ngay ñëw wax ko ne ko lii mooy mbubb soo ko waxee mbubb ba mu xam ne lii mooy mbubb nga door a tàmbali nag détailleel ko li nekk ci biir mbubb bouton yeeg loxo yeeg wax ne maanaam loolu mooy minal kulli ilal juz am na ñu ne déedéet da ngay tàmbalee minal juz i ilal kulli dangay ñëw ne ko lii bouton la lii nangam lii nangam ba mu daj jàngalem daara nag minal jus i lay tàmbalee ilal kul ndax moom bu ñëwee lim lay njëkk a wax lim lay njëkk a wax daf lay wax baa su fekkee ñuy jàngale baa si mimara wala mu ne la alif baa taa taa kooku benn foofu ñettan xale bi soo ne ko baa war nay gis baa bi nga xamante ne nii moom nga koy wan gis gi mu koy gis tim war na koy mën a wax waaye tim war na koy mën a bind mais bu dee ci njàngaleem daara bind mi du am bu dee ci njàngaleem daara dañ ngay wax ne la jàngal rek nga ne baa nga ñëw ci siin nga ne siin nga ñëw ci mimara ñu nga ne mimara loolu mooy yow li ngay jàng danga koy jàng nii di ko gis di ko wax rek waaye maanaam jàng goo pour bind loolu daal mën nañ koo wax ci njàngaleem daara amma bu dee li nga xamante ni tey mooy ñun suñu warugar li ñu waroon a def taxawee ko tey mooy dem ci tableau bi wane li nga xamante ne nii mooy njàngalem école njàngalem école école tey suñ ñëwee dañ lay jox benn classe lan tey mën nañu jël ñii ne benn classe la ñii ne benn classe la école bu lay jàngal bu lay jàngal benn moom du tàmbalee minal minal minal minal minal jusi ilal kul am na ñu ne sax mën naa tàmbalee foofu mais moom mus dawaja lay def day jaxase day boole day boole kull wala mu boole ak kull moom lekkee doon def ñëw di jàngale naan baa siin mimara loolu daf doon wax xale bi lettre bi nan la tudd lettre bi mu tudd muy baa siin miim kooku loolu la lettre bi loolu la daara ji doon def dafa am ñoo xam ne dañ ne loolu dafa xaw yéex parce que xale bi lim fiy nekk di jàng xuruful xijaay yooyu yëpp moom mu ngi jéem a xam lettre bi nan lañ koy wax nu mu tudd booba defaguñ ci maska sax de amagul fatha amagul kasra amagul dam bu dee ci njàngalem école nag tey moom lépp lay boole dalay lay jéem a wax lan lettre bi nu mu tudd mais lettre boobu nan lañ koy waxe ah bu ko defee lettre boobu tim dañ koy def ci biir benn baat boo xamante ne nii ñu mën a exemple tey dañoo woon tey salaat li may njëkk def may woot may yor benn liste boo xamante ne nii xale yi may jàngal yépp seen tur de xale yi may jàngal yépp seen tur de diine su ma ñëwee lu may njëkk a def benn xale yi jóg nuyu ma wala man ma nuyu leen leen nuyu ma nag ci commencement bi comme que bu dee leen di jàngal bu nit ñëwee dugg ci kalaas bi nan la ñuy nuyee tey ci école dañ lay wax ne la benn nga ne asalaamualeykum wa rahmatullah wala nga wax saba alxayri ya sayidi loolu nga entraîné ko xale yi ba mañ ko nga xam ne saa woone tag sa école sa tànk ci biir kalaas bi rek ñu jóg nga ne saba alxayri yaa sayidi ah nga ne saba alxayri yaa talaami nga wax leen ijlisu wane nii rek ñoom dangay boole ay isharaat ak imaat da leen di xamal ne sone nii ñoom dinañ xam ne danga nga war a toog soo nii nga xam ne da nga war boole koog wax ijlisu ñu xam ne tey fu ñu déggatee ijlisu danañ xam ne ijlisu mooy toog leen quumu aywa loolu moom lay jàngalem école bi moom du ñëw rek waxal la maanaam lettre bi nu mu tudd bu dee ci daara moom daf lay wax ne la lii alif la tudd rek lii ngay jàng tey alif ba jiim daal ci ngay nekk ci suba ba ngoon alif ba jiim daal alif ba jiim daal alif ba jiim loolu njàngaleem daara alif ba jiim daal alif ba jiim soo ko xamee ñu yokkal la leneen ne haa waaw zaay ah noonu ci ngay continuer continuer continuer ba njàng mi ba ba xuruful hijaay jeex nga daal di tàmbale nag ñu indil la maska loolu ci njàngalem daara la waaye bu dee njàngalem arab tey su école bi ubbee nga yor kalaas bi ñuy tuddee yi dañ lay wax na la xuruf yii xuruful hijaiye yii na góor góorgóorlu balaa at may jeex na nga leen ko jàngal waaw na nga góorgóorlu at may jeex na nga nañ ko Bakar Lamine Jadda Satta Hawa Aya soo ko xoolee fukki lettre la ak ñeent benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñeent fukk fukk benn fukk ñaar fukk ñeent ñu ne la xale bi nga xamante ni mooy door a dugg école tey balaa at mee jeex na nga góorgóorlu ba mu maanaam jàng lettres yi mais lettres yi bu mu ko jàng ni rek comme ni koy ko jàngee ci daara ji alif ba jiim daal ha waaw zaay déedéet na xam ne lii masalan tey lettre bii fi njëkk nii mooy baa na xam ne mooy ba waaye na xam baa boobu tey suñ ko maasee fatha nuñ koy jànge suñ ko maasee kasra nuñ koy jànge suñ ko maasee nuñ koy jànge su fekkee alif daa nekk ci kanamam nga xam ne dafa war a xëcc nuñ koy jànge tey yow noo tudd usmaan ku tudd Babacar wala Abdou yow Babacar nga tudd kaay unduru ila haada man haada kii mooy kan day naa haada Babacar haada mooy joxoñ man haada hada Babacar foofu tim ci njàngalem école réponse bu ñëpp di def ndoo dañ la koy aay yow muallim bi yaa leen di teel a xamal ne maanaam tontu kenn na koy def waaw ku ne nag tontu léegi ku mën tontu raful yadd da ngay yëkkati sa loxo demandé mooy da ngay laaj ba ne la joxal aywa man hada naa haza ba Babacar aywa Babacar bindal ma fii ci tablet ma xool bindal loo neex ah unzuru ila Babacar Babacar muy def aha Babacar lu muy def leen ma yéen laay waxal Babacar lu muy def ku xam na tontu ah day day bind Babacar day day bind day bind nañ koy wax ci arab aha a ah, aqaraw ah, mooy maa ngi jàng de day bind laa yaktubu yak yak yak bu léegi nag loolu fi mu toll ni leçon bii ñu lay jox sax ab dañ lay diiral nga la trente minutes wala trente cinq minutes bu ko passé aha yaktu nga commencé na ci xale yi kariri waxal wax ci kaw yaktubu aha aha waxal ci kaw aha yaktubu aha kariru yéen ñëpp yaktubu man yaktub kan mooy bind man yaktub yaktubu Babakar ayna yaktubu Babakar Babakar fan lay binde tableau nu mu tudd ci arab sabu sabura yaktubu Babacar alas alas sabura bi ma yaktubu Babacar lan lay binde kere ah at tabsu at tabsura jayit loolu laa soxla woon andi demal Babacar ijlis <coughs> aywa xool leen yak yaktub yaktubu man yaktub Babacar ayna yaktubu Babacar Babacar fan lay bind alas alas sabura yaktubu Babacar alas sabura bima yaktub bi bi tab bi tab suura xam naa nag am na lu des Babacar bi muy lan la muy leçon am lay bind sax boobu andi woon ko mais li leen bëgg a xamal tey mooy lettre bii lañ bëgg a jàngale baa un xool leen kii la ñuy jàngale tey baa un baa waxal ma dégg waxal yow baa un waxal aha waxal yow waxal yow waxal yow waxal yow waxal yow baa un wax leen ma dégg aywa baa un moom lañ bëgg a jàngale tey léegi am nañ yëpp. xool la ba xam ni ngay jàngalee noonu la mais duñ xool loolu rek ba xam sa classe bi dab nga ko ba xam en règle da ndax la joxoon ci ay lettre da war a def lu ñuy tuddee tawsiya nga ne weer sàngam naa jàngale ñaari lettre wala weer sàngam naa jàngale ñetti lettre loolu ci wax ko noonu rek mais da koy bind ci këyit wut sa benn tabafee nga taf ko. nga xam ne ni inspecteur bu ñëwoon mois de mois de sàngam dana xam ne lettre yi nga war a jàng su gisee ne jàngale woo lettre yi benn da nga koo passé mu ne la li ngay daw bëri na su fekkee accès goo fi te waroon nga fay accès mu ne la loo doon def ba léegi accès goo fi ndax moom suy ñëw rek moom doonte xamutoon mais buy ñëw xam na yow tey ban lettre nga war a jàngale da kon lépp dañ koo lan def ci ay programme loolu tax léegi aywa ñu dellusi fii ci jumla bi sukut انظروا يكتب بابكر على السبورة تبشورة am na ñooy wax sax comme ay xale yuy door a tàmbali lañ mën ngaa gën a wàññi jumla bi ndax effacé bi baabakar ala aha xool leen ci tableau baabakar ala

waaw yaktubu Babacar ala sarwala antum jamian yaktubu Babacar ala sarwala karrero yaktubu Babacar ala sarwala karrero yaktubu Babacar ala sarwala iqra anta jàngal waxal yow yaktubu Babacar ala sarwala léegi nag nga waxal leen nag jumla bi lan lay teg kan moo waxal loolu lu muy teg ci olof yaktubu Babacar ala sabura yow waaw loolu boo ko doon wax ni ñi ci olof loolu lan la yaktubu Babacar ala sabura waaw Babacar moo ngi bind ci ci tableau bi léegi nag loolu benn partie la ci biir li ñu jàngale mais dafa des na ni léegi li ñuy tuddee taxliil taxliil ñaar taxliilul jumla ilal kalimaat taxliilul kalimaat ilal xuruf mooy ilal aswaat sawt nga xam ne nii tey yii am na lu ñu soxla eh, loolu commencé wax koo mën a wax ñaata baat ba waaw ñetti baat ban ak ban ah yaktubu ma def nii yaktubu Babacar ma def nii ala sabula léegi nag fii yow oustaz bi dangay jéem a dellusiwaat ci xale yi ba xam li ñuy jàng xàmmee nañ ko wala xamee wuñ ko donte war nañ koo wax nii ala sabura ana ban mooy ala sabura ban baat mooy ala sabura baat bi ci digg bi baat bi ci commencement bi baat bi ci mujj bi. baat mujj bi ba. Ah? Ah? bi. da ngeen ci digg bi nag ban baat la. baat bu njëkk bi nag. yàq yàq léegi nag tey xool lii la ñuy jàng baa un. gis ko. xool leen fii ci baat yi mu yaktubu kan moo ma fi mën a woon baa un yaktubu yow kaay fii fii masmu noo tudd abdoulaye abdoulaye loo ñuy wan ana baa un abdoulaye nga ngeen Abdoulaye li mu teg jayit am xayru jayit baax na wala baaxul baax na baax na li mooy baaxul benn nag bu la neexee su fekkee yor nga ay craie couleur nga ne ko couleur yooyu ma baaxul ndax fii baaxul rek lañ soxla léegi daf koy couleur pour mu fës mu xam ne lii lañ lettre bii lañ war a jàngale moom lañ soxla aha keneen ko ma mën a waraat baaxul yow kaay noo tudd aju ah ajum ajuma wan ma baaxul. waay waaw kii boobu na ko léegi. jaay ah ajuma tàccu leen ajuma. lii da nga koy def ngir tas jeex loo bëri na xale yoo xamante ne nii dañuy dem école ba ñëw duñ dem table ndax dañ maanaam du question dañoo xamut sax mais dañoo ñemewut léegi nag moom ñeme na ñëw na xëy na li mu wax baawul baawul la mais beneen lañ soxla woon ndax am na ku ko joxe woon ba pare mais de tashjih pour bu gënee nekk mu mën a ñëwaat waaw a jigéen moom xanaa mu bëgg a xam baawul waaw itam suura naam waaw baa un rek waaw waaye nag da ngay bàyyi xel ci ñetti baat yooyu ñu xam léegi fii léegi ci ñetti baat yooyu waneel foofu baa un ñetti baat waaw tey it baa un a ngi noonu léegi baa un mën nañoo génne baa un yi fi nekk yëpp léegi wala dafa am keneen gisaat beneen baa un yow yow ñëwal waaw demal waaw ñëwal yow ah oustaz bi la moo bindu bindu mu leer moo tax xale yi mën a ñoo xam waaw baa ul ñu ba tey jay aywa baax na day leen am nañ baa ul am na ñuy wax sax li ñuy wax des na max wut tadrib yi bu fi éponge amul. aywa ana ana Moussa éponge am na. wala éponge. ah kay ñu ci biir ñu ci biir abal ma loolu yow daggal ma benn mouchoir bi. léegi ba leen ana am sax kaaf. xool leen bu baax de xool leen bu baax de takk bi nekkoon dama koo dindi lan moo fi des léegi. lu fi des ah. yow laa yow. dégguma la de yow. lu fi des. ah. yabu moo fi des lu fi des. ah. yatugu. léegi dindi naa yaa on bi lan moo fi des. waaw. ah la des tuubu dindi naa taa un bi lan moo fi des ah bu beneen baat bi lan la baa Babacar su ma dindee baa lu ciy des ah Bakar su ma dindee ar lu ciy des. bakka. ah. bakka. ba. bakka. su ma dindee kaafu lu ciy des. ba. ba. lan moo des fii. lan moo des fii. ba. tey lan la ñuy jàng. ah. ba un. tey waxoon nañ ci njàngaleem daara ñun njàngaleem daara bu lay jàngal lii la lay jëkk a jàngal wax bu dee njàngaleem école nag day boole ñaar yëpp da lay tudd waaye suñ ko dee jàng suñ ko dee maanaam su fekkee sawtu buy génn la ndax maanaam sawtu ak ak xarfu bokk na sawtu bi mooy xarfu bi ànd ak masque bi loolu la ñuy tuddee sawtu muy son bu dee xarfu bi nag mooy xarfu bi nii rek saa mu bañ a ànd ak masque bi jàngaleem daara nag da lay jàngal xarfu yi ba mu jeex benn bu ci nekk mu wax lu mu tudd mu door la koo maasal di la wax ne suñ ko maasee bu leen koy jàng bu dee ñaar yëpp la lay booleel waxal la xarfu bi tey su amee masque bi duñ koy jàng kon xam nañ ne lii mooy baa un waaye fii lan lañ wax bu ina léegi tey am na yow ñeenti façon masque yi ñu jàng tey am nañ masque bi am nañ bi masque bi nu mu tudd fata bi bi bi sukun jayid fatha kasara damm tey baawul la ñuy jàng ñun baawul fii ñun baawul fii ñun baawul fii baat bi lan la. alas sabura. alas naa alas. lan moo di des. sabura. sabu. naa ra. li ci des. sabu. naa sa. li naa waaw li ci bu. kon am nañ bu ñaari am nañ fii bu am nañ fii bi bi ba ci masque yi ah am nañ bu waaye bii moo yor masque damma am nañ ba moo yor masque fatha léegi ban lañ amul am nañ masque damma am nañ masque fatha ban lañ amul kasra abban abban damma am nañ ko muy nii sukun kan moo mën a li waaw waxa ci kaw waxa ci kaw dégguma de commencé waat bu ba bi ab aaxar keneen waaw waaw bii ab keneen waaw waaw bu ba bi ab bu ba bi ab léegi nag ci kii dafay am leneen lu ciy topp mooy xale yi am ardoise ñu jàng nii dañu leen koy binduloo fii wala la bee jeex kon jàngaleem école maanaam dafa xaw a wuuteeg tuuti njàngaleem daara wala boobu lu bari sax waaw ndax njàngaleem daara moom balaa ngay dem ba ñu la jàngal bind ragal naa da ngay dem ba mokkal alquran ñu commencé laa nag na la del beq nga del bet bët bu set deel bind sumul wala bët bu set deel bind ruba wala bët bu set kon daal suñu bëggee wax ci maanaam jàngaleem daara am na loo xamante ne ni daal moo xaw a wuutale jàngaleem daara buy jàngale aw yoonam benn yoon lay topp muy lan tariqa ñu tuddati abajadiya mooy da jàngal lettre bi nan la tudd mooy nu koy wooye su paree mu maasal la ko doon su paree maanaam boo jàngee iji ba mu jeex mu doon laa boole loo bu dee fii nag ci njàngaleen école lépp la boole dañuy boole maanaam abajadiya bi mooy taxliliya tarfiya dañuy tàmbalee ci jus bi dem ci lan kull bi wala ñu tàmbalee ci kull bi dem jus bi yépp lañuy ñuy boole fii bindal nañ xale yi benn jumla kan moo a baat bi nekkoon fii waaw baat bi waaw baat bi fii yëpp dañu bindoon yëpp ah? xale bi xam na baa un te du tee fi mu toll nii mën naa jàng lan kii arab baat xam na xar xam na baa un bi sawtu bi mën na koo jàng loolu de moom koy boolee baat bi di ko jàngal. beneen bi ci des yàttu lu muy tekki moo ngi. ngi bind ñu toll nii xale bi xam na sensu yàttu xam na sensu yàttu donte lettres yi jàngagu ko moom fi mu toll jàng na benn lettre bi rek lañ ban baat moo nekkoon fii. baaba ba ba ban baat moo nekkoon fii. alas sabura. alas sabura. sabura lu muy tekki. tab. ah. tab. tableau. Babacar lu muy bindee bi tab suura dafay baa una ngi kon ci gàttal liñ bëggoon a wax daal mooy loolu am na leneen lu ñu des nag ndax xale bi da nga koy natt ci li nga xamante ne ni moom nga ko jàngal natt bi nag mooy laaj ko rek ay question nga koy laaj question yi du génn jumla bi man yàgg toog mooy kan mooy bind man yàgg toog waaw kan mooy bind dama leen a laaj tey yéen da ngeen ma war a tontu aha léegi nag foofu tim da ngay jàngal xale bi ne ko benn baat kenn du ko tontu man yaktub Babacar lu muy mooy bind bi da koy tudd kon da ngay wax laajaguñ la ci fan lay bind de waaw yaktubu Babacar hada huwa man yaktub yaktubu Babacar ayna yaktubu Babacar ba tey waxoon nañ leen benn baat kenn du ko tontu da ngay tontu ñaari baat wala ñett dañ yaa ngi nii ci biir tableau bi waa arab laa bëgg nga wax ma ko yow tamit ah. yaktubu Babacar ala léegi nag li am solo tey moom ñun bii lañ doon jàng. man yaqara kan mooy liir waaw waxal bu ba ba bi bi ak bu ba bi ak bu ba bi axar antum jami'an bu ba bi axar ma baa de ba rek laa ba ak baa bokk wala bokk kon loolu la woon léegi nag suñu soo bi jeexee nga delluwaat ci xale yi omo ijlisu waaw kon mbokk yi mën nañu wax ne daal loolu lañ ci indi woon pour ci li ñu waroon a mën a joxe tey ci li ñu Daouda Camara santoon ci muqaarana njàngalem daara ak mooy njàngaleem école comparé ni daara di jàngale ak ni école di jàngale kon liñ ci mën a tënk mooy daara moom su lay jàngal day tàmbalee ci li ñuy tuddee maanaam al abjadiya mooy dalay jus la lay jàngal ba mu jeex door laa jàngal kuy mais bu dee école nag moom lépp lay boole day boole justu ak kull tax yoon yi muy jàngalee ñun tariqa bi dañuy wax naan tariqa taxliiliya tartubi mooy da ngay jàngal xale bi biñ ñëwee fii ci yàq bi taxliil nañ ko mooy tas nañ baat bi ba mu des benn lettre ndax lettre bi moo ñu intéressé woon moom lañ doon jàngal xale bi mais boolewaat nañ ko muy yàq bu kon xale bi xam na lettre bi jàng yamu ci mais moo bi mu àndal xale bi xam na ko yamu ci mais sens bi li muy tekki xale bi xam na ko kon am na ñoo xam ne daal dañu gis ni ne jàngaleem école moo gën a gaaw njàngalem daara waaye nag njàngalem xam moo gën a dëgër mu gën a sax ci jàng ci daara maanaam topp ko téere par téere téere par téere ba jeexal du bokk ak ki nga xamante ne ni ci école la nekk nga xam ne programme lañ koy bu année bi jeexee bu programme bi jeexee xayrul su année bi jeexee bu programme bi jeexul tim xayrul moom foofu lay yam bu ko defee moom comme programme la yor kii nag téere par téere lay jàng téere par téere kon maanaam fii jàng téere par téere xëy na moo gën a yàgg ak diiram moo gën a yàgg waaye xam-xamam mooy gën a sax ci ki nga xamante ne nii maanaam jàng na ki nga xamante ne dafa boole ñaar yëpp nag moom ba tey kooku ngay wax maanaam borom xam-xam biir lay doon day xam li nekk ci daara école bi moo tax nit ki jàng dañ lay wax ne la bul gàttañ bul yem rek ci li nga xamante ni moom nga jëlee école wala bu yem rek ci li nga xamante ni moom la nga soo mënee am beneen sëriñ boo xamante ni moo lay jox yeneen yoo xam ne sëriñ bi nga nekk du la ko jàng demal nga dem jëli ko tamit ko jàng ndax maanaam xam moom ci biir téere yi kenn xamut lépp ñi ñoo xam ne ñi ñi xam ne ñi xam ne te ci njàng mi nit ñi dañ cee mënante maanaam kii xëy na moo gën a fort. maa ngi jaay ma xam kon daal loolu mooy li nga xamante ne nii moom lañ andi woon tey li nga xamante ne nii moom lañ Oustaz Daouda Camara sant ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax lu ci dëng nag ngeen xam ne ci man mii la lu ci jub ngeen xam ne ci yàlla la wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxuma la xaraf mais ay jumla jumla la ñu jàngal maanaam leçon bu baree bare bari la ñu jàngal maanaam daf ñu jàngal suñu jàngalin suñu façon jàngalin naka lay doxee te jàpp naa ni nii mu ñu ko wane am naa yaakaar ni oustaz noonu lay jëflanteeg yéen ci classe bi de ah wala waaw kay kon yàlla na ñun ñëpp ñu ñaanal ko yàlla comme ni ñuy ñaanale oustaz Daouda Camara comme ni ñu koy ñaanale yàlla parce ñoom bu ñu fi yàggee diine dina am ndam te it xale yëpp dinañu jub xale yëpp ñu baax xale yëpp dinañ nekk njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon sa jusita xayran wa kufida sawa ma laqitum ma baqikum dara bi barakati sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na bur yàlla fay la yiw te dooli la barke yàlla dooli la fatxu yàlla dooli la taxawu zahiran wa batinan barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wax dëgg yàlla leer na te it am na solo wax dëgg yàlla te it neex na dégg parce que njàngale bu fekkee koy def yàlla may na ko fatxu ba pare mu mën am fasaaxa boo xamante ni dina mën a teqale li muy wax ba ku nekk lu nit ñàkk-ñàkk dégg-dégg mën a comprendre li muy wax ku loolu ndimbalu yàlla la yal na yàlla dolli ko kon su ko defee mbir maa ngi noonu taali xaar yi du sori parce que li leer dafa leer ba pare jàpp naa ni boo gisee xale yi ni ñu doon ni ñu doon wane seen bopp rek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 حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالرضا والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على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 حسبي بحي وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني لي بحي وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي ببر رؤوف حسبي به وكفاني حسبي بيضا حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبتا حسبي بشيخ تجاني قلبي له ومنامي وقلبي كل آني ربي فدارك بيضا سرعة دون تواني حسبي به وبتا حسبي بشيخ تجاني تثميتا الأعادي ولا توسل جناني حسبي به وبداها حسبي بشيخ تجاني فجاء الفؤاد كصخر ولا ترديه الكباني حسبي به وبداها حسبي بشيخ تجاني وتكفي لي كل سقوى ولتقضي هذا الأماني بجاه خير البرايا وجاه شيخ تجاني أسبي به وبتاه أسبي بشيخ تجاني وجاه سيحي وأصلي وليدي آل المكان أسبي به وبتاه أسبي بشيخ تجاني أخي فالعبد المناه إتهافكم قد كفاني حسبي به وبتا حسبي بشيخة جاني أزكى سلامي سلامي أنا زعيم من جناني من بعد كل سهاب بدأني الخذلان حسبي به وبدا حسبي بشيقة داني بقى سلام سلامي على زعيم جناني حسبي به وبداه حسبي بشيخ تجاني فمدعو شيخ أو راد وعذابي وإدادي وسيفي بين أنداد وهو روحي ورياني فمدعو leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq di nuyu borom jotaay bi nga xamante ni mooy Oustaz Daouda di nuyu gan yi fi teew yëpp xam naa wax ji du mën a gudd dañ leen di présenter gan yi rek bu ko defee ñoom ñoo yor programme bi après ñoom ñoom ñu wax dugg ci seen programme li ñu war a baaxee doo jullit ñi incha allah di beral nuyoo suñu sang bi suñu sëriñ xam naa présentation bi moom sant ñang rek doy na ci présentation waxuma laak nag ngay satu maam alxaaji malik si loolu rek doy na ndax ñangeen bu njëkk xam ma nag léegi waaye bu njëkk moom buñ daan wax alquran ñangeen lañ doon wax waaw ñangeen ku leen xam ku ne ci alquran nga leen xam boo demee Touba nga fa sant ñang ci alquran leen xam foo mën a dem ci këri diine yi nga dem Tayba ña seen ña sant ñang ñëpp alquran lañ leen xamee woon kon sant ñang rek doy na présentation waxuma la ak nag nga dolli ci nekk sëtu alxaaji malik si suñu maam alxaaji malik muy sëriñ bi toog di alxaaji Bamba ñang di doom ci sëriñ Bachirou ñaŋ waaw Bachirou ñang di doom ci Fat si Fat si di doom ci maam alxaaji malik si kon sët direct la mu ànd ak nag ay mbokkam ay rakam di ko wax Abdoul Aziz ñang di ko wax Ibrahima Mbeng yi maanaam daal ay sëriñ doo nga fi toog ñoom ay sëriñ rek a fi toog ñu fi toog ñëpp ay sëriñ la bu ko defee nag sëñ bi ci suba jàngoon nañu fi kaamil jàngoon nañ ba agsi alam tara kayfa fa'ala rabbuka ñu ne woon nag soo ñëwee dañ lay bàyyil nga mottali daal di ñuy xatmul bu ko defee xam naa xale yi après am na ay démonstration yu ñu war a def suñ paree nga door dugg ci li nga xamante ne nii moom ngay baaxe julliti yàlla yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbil min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri nafasaati fi luqad wa min charri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 allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabu ar-rahim wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim bibarakati khatmi al-qur'ani al-azim bibarakati khatmi al-qur'ani al-azim bibarakati khatmi al-qur'ani al-azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا قرينا wa fi lqabri muunisa wa fi lqiyaamati shafiica wa ala siraati nuura wa ila aljannati rafiiqa wa min annaari sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaaman bifadlika wa juudika wa karamika ya arxama arraximin allahumma arzuqna bikulli xarfin min alqur'ani xalaawa wa bikulli kalimatin karaama wa bikulli aayatin sacaada وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر علماءه ووزراءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيد الوجود وقبلة الشهود مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wa awlaadihi wa azwaajihi wa saxaabatihi ridwaanullahi taala alayhim ajmaciin wa ilaa arwaaxi jamiicil anbiyaa'i warrusuli alayhimu salaatu wassalaam wa awlaadihim wa azwaajihim radiyallaahu canhum wa ruuxil qutbil maktuumi wal barzaxil maxtuum mawlaanaa abil cabbaasi ahmad bna muhammad bni saalim tijjaani radiyallaahu canhu wa awlaadihi wa azwaajihi wa ruuxi sayyidina wa xabibina wa wasilatina ila rabbina mawlaana alxaaju malik ibnu usmaan taaba alayhima wa ala aljamici arrahimu arrahman wa arwaaxi ashyaaqihi wa arwaaxi saadaati tariqati kaafa ridwaanu allahi taala alayhim ajmaciin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 حسنا

ka